ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu ngi santaar suñu boroom subhanahu wa taala ci lim ñu wërsëgal ñu daje ci ab néegam di fas yéene jël benn bind ba aju ci wàllu fiq di sukkandikoo ci téere bii di minhajul muslim bu abu bakar aljazairi rahimahullah doonte ne ni dimanche yi wees yëpp ñu ngi nekkoon ci wàllu aj makka tey jii bokk na bind yu ñu waroon a jël mooy naka la ñuy aje ak ziyaar yay am ca Madina donte ne dañoo gisoon ni naka la ñuy aje moom détaillé na ko ci dars yi passé yépp gannaaw ba it lii di ziyaar ji Madina loolu moom nekkul farata ci jullit ñi jotewul ak aj Makka dara it ngëneel la daal ci ngëneel yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne kenn du jóg di jëm ci tukki fekk jàkk moo la yëkkati lu dul ko jë jóg jëm ci ñetti jàkk yi muy masjidul haram ak masjidul aqsa ak jàkkam ja sallallahu alayhi wa alihi wa sallam looloo tax ba sax ki nga xam ne dafay dem Madina lu bari ci nit ñi seen yéene mooy ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte ne ni la nga war a yéene kay mooy ziyaara ji jàkkaam ja soo demee ba Madina nag su boobaa yoonal nañ nga dem ziyaare lii di xabroom ba nekk ca jàkkaam ja sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo taxoon ñu bëggoon a ñëw tey ci li ñuy tuddee alfaslu rabi achar ca mooy fi l udhiya wal aqiqa ñu jël bunt bi nga xam ne day jàngale gàtt yi ñu war a rey ci tabaski bi su dee da nga yor mool yu bees yi mi ngi ci page deux cent soixante-dix-neuf soo yoree beneen mool it nga xool rek alfaslu rabia achar mi chapitre quatorze bi mi ngi nekk cent deux cent soixante deux cent soixante et un ci ñu yor moolu français yenn yi deux cent soixante et un xam nañu ne jamono ji ñu toll ñu ngi ci jamono yi uti xari tabaski yal na ko yàlla yombalal borom kër yépp suñu borom it lii di aj Makka moo ko woote xam na ne na ko jekk jullit ñi duñ ko man boo xoolee tey bu ñu naan un milliard et demi de musulmans ñu ne un million lañ ci may ñu aj si loolu matul sax un sur mille loolu tax borom bi it wóotal leen jaamug yàlla goo xam ne moom jullit ñépp a koy bokk ci penku sowu ak sowu sowu jant yépp mooy la nga xam ne nii mooy tabaski ak la mu ëmb ci fan ya ko jiitu ak la mu ëmb ci julli ya ak askar ya ak takbir ya kon su dee bokk nañu gis day wax ni almaadatul ula fi l udhiya bind bi muy jëkk a jàngale mooy ci udhiya taarifuha buñ la bëggoon xamal loolu mooy lan al udhiyatu hiya shaatun tuzbahu duha yowm al iid udhiya daal buñ ko waxee ci arab mooy gàtt ba nga xam ne dañ koy rey te yooru yooru bi su it taqarruban ila allahi taala fekk ba nga koy rey yaa ngi ciy jublu rek jege yàlla ay am ngërëmal yàlla jalla wa ala ca mbokk kon mi ngi noonu ñun dañuy wax fii xaru tabaski wala tabaski su ko defee julit année bi yépp am nga droit di rey di lekk di rey di sarxe amma bu dee tabaski moom dafa am statut spécial te mooy rey ga nga koy rey ca waxtu ya nga koy war a reye ngir jublu ci am ngërëmal yàlla jalla wa ala ñaareel bi mooy xukmuha waa lan mooy attey tabaski soo déggee atte mooy loo xam ne dañ naan la lii kat lu war la lii kat dañ ko sunnaal lii kat dañ ko sopp ngi noonu lan mooy atteem al udhiyatu sunnatun waajibatun ala ahli kulli baytin muslim mu ne lii di rendi xarub gàtt ca bisu tabaski ba day sunna la boo xam ne bu war la ñeel bépp kërug julit qadara ahluha alayha bépp kër goo xam ne nii waa kër ga mënoon nañoo fexe ba rey xar ba rendi xar loolee day dafay nekk sunna boo xam ne waajib la am nañu koy tudde sunnatun muakkada sunnatun muakkada mooy sunna yi nga xam ne jullit bu baax moom du ko man ba pare di ko bàyyi doonte ne ni kenn du wax farata la wa zalika li qawlihi taala fa salli li rabbika wanhar ndax la yàlla ni jullil ñeel sa borom ca rendi lu bari ci mufassiruuna yi dañ koo firi bisu tabaski ba demal julli ji soo paree nga rendi sa xar wa qawli rasul وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعيد ينتبه عليه السلام مسنا جلي تبسكي بفاري di nibbi gis ñuy fees seeni xar mu ne képp koo xam ne nii day da ngaa rendi woon avant ñuy julli na indi beneen gàtt bu mu rendi ca palaasam te loolu it mbokk mi ngi noonu mooy tabaski mooy contraire korité korité dañoo bëgg nga génne zakatul fitre bala ngay julli ji ama tabaski moom da ngay julli ji ba ñëw doogo ren di sam xar wa qawli abi ayub al ansari كان الرجل في أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيد أبو أيوب الأنصاري nga xam ne yonent bi bi mu jëkkee Madina avant muy defar këram nga këram la daloon mu ne yonent bi day ba muy dund nekkoon na mi ngi noonu kaana rajulun fi ahdi rasulillah sallam yudaxi bi shaat anhu wan ahli baytihi benn góor da daan rey benn gàtt ñeel ko moom ak ñeel ko mboolem ña nekk ci këram loolee kon dañ ciy déggee ni tabaski day sunna la boo xam ne ku ko man war na koo def suñu borom digle na ko yonent bi alayhi salaam feddali ko sahaaba yi it dañ ko doon jëfe su tabaski mboolem ci ñoom ñi mënoon ñépp dañ doon rey gàtt ñetteel bi mooy fadluha yën ngëneel moo nekk ci bisu tabaski nga rendi benn gàtt yashhadu lima li sunnati al udhiya min al fadl al azim dana seede li ñeel tabaski ci ngeneel yu màgg qawlu rasuli sallallahu alayhi wa sallam ma amila ibnu aadama yowma nahr mu ne day jëful doomu aadama bisu tabaski amalan ahaba ila allah min iraqati dam jëful benn jëf boo xam ne yàlla dana ko gërëm bëgg ko nu mel ni bu tuuroon deret bi su keroog wa innaha la taati yowma alqiyaama ndax gàtt boobee day dana ñëw yowma alqiyaama bi quruniha wa azlaafiha wa ashaariha dana ñëw yowma alqiyaama léppam nekk ay tuyaaba béjjën ya tuyaaba weyam ya tuyaaba karawam ya tuyaaba lépp ñu bindal la ko وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض من درج دي بنكرين دي بلا لالسوف يل بندل نلا كرب تياب بنكين رأم فطيبوا بها نصا ايواي تيل لنسن بكن ci xar moomu ngeen di rendi te mooy la ngeen cay dépenser xam leen ni loolee da nga caa war a kontaan bis boo koy ren ni nga kontaan ci ndax yaa ngi xam ne yaa ngi dencal sa bopp yaa ngi dencal sa bopp yiwu rëy woo xam ne moo lay xaar yowm alqiyaama mi nga noonu donte ne sunu maam yi ngir sawarloo nit ñi dañ doon wax naan duufal leen seen tabaski yi ndax bu ñuy jéggi siraat xaru tabaski la ñuy war waaye loolu moom seen wax la seen wax la naam wa qawlihi sal allahu alayhi wa sallam wa qad qaalu lahu ma haadihi al adaahi sahaaba yi mas nañ laaj yonente bi na ko waaw tabaski yi moom lan moo ñu ciy ñeel lan moo ci nekk qaala sunnatu abikum ibrahim mu ne tabaski day ki ka jëkk a sunnaal mooy seen bàyyi ibrahima alayhi salaam qaalu wama lana minha ñu ne waaw bu dee def nañ ko lan mun ci ñeel qaala bi kulli shaaratin xasana mu ne bépp karaw day yiw dana ca nekk ñeel leen qaalu fa suuf ñu ne ko waaw leenu xar ba nag qaala bi kulli shaaratin min assuufi xasana mu ne bépp karawul leen dana leen ñeel tuyaaba te mbokk jàpp naa ne doyoon na rek liggéey doomu aadama ñu indil ko am xar ne ko konteel ñaata karaw ci nekk te karaw bu ne tuyaaba la loolee kon muy wone ni doomu aadama war na góorgóorlu kemtalal kattanam fexe ba bisu tabaski mu am xar mu mu rey mu mu rendi allahuma lu dul ni ñun Sénégal dañ cee laxas leneen te mooy suñ mag ñi bokk na luñ daan wax nee na ñaari gàccee ngi nii góor du ko bokk kenn mooy sa jabar ëmb juróom-ñeenti weer ba bisu ta bisu tudd ba amoo xar moo ko reyal bisu tabaski it kër yépp di ren di xar sa njaboot wër la di la xool amoo xar moo rey loolee da ngay gis mbokk dafa màgg lool dafa diis lool ci Sénégal looloo tax ba lu ci bëri daan ci tegoo sax loo xam ne nii mënuñu ko waaye nag loolu warul woon a nekk dañ ko waroon a yemal rek ci cadre la nga xam ne mooy jaamu yàlla su ko defee boo ko amee fay la alhamdu su ko amul it nga xam ne tuyaaba ja moom dana la ñeel mi ngi noonu xikmatuha lan mooy xikma ci suñu borom tëral ni nañuy rendi xar bi su tabaski min al xikmati fi l udhiya bokk na xikma bu ñu mën a jëlee ci tabaski mooy ataqarrabu ila allahi taala biha mooy jege ga ñuy jege yàlla ci loolu ca loolu mbokk mooy xikma bi jëkk ci mboolem jaamu yàlla jullit day gëm ne suñu boroom mooy alxakim alalim lépp lum ñu sant rek am na xikma bu nekk ci gannaaw loolu am na sagesse bu ca nekk ci suñu njëriñ ci suñu yërmaande doonte ne léeg-léeg doomu aadama du ko xam waaye xamal ne xikma bi jiitu ci mboole mu jaamu yàlla mooy jullit da koy def ngir am ngërëmal yàlla jeex na comprendre na la ca des ak comprendre ko is qaala subhanahu suñu borom nee na fa salli li rabbika wanhar booy julli jullil ngir ñeel yàlla booy rendi rendil ñeel yàlla mu ngi noonu wa qaala azza wa jal qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika la yow neel man day sama julli ak samay rendi mu ngi noonu ak sama dund ak sama dee lépp ñeel na yàlla mi borom bi ndaafal yi amul kenn koo xam ne nii danaa ko ko bokkaale ak loolu loolu moo tax ba julit ni muy kàbbari di julli ñeel yàlla kese heure bu tiimee xarum tabaski mi it su koy rendi mi ngi ci jublu ngërëmal yàlla kese wa nusuku huna huwa zabhu taqarruban ilayhi subhanahu wa taala kon loolu mu ne wa nusuki mooy rendi ga ngay rendi ngir jege sa boroom jalla wa ala ngi noonu ca it li tax julit naan samay rendi yépp ñeel na yàlla xam ngeen ne bari na ci doomu aadama yi ñu yàlla nattoo ba nga xamee ne nii dañuy rendil jinne yi di rendil seen xamb yi loolu nag mbokk julit du ko def abadan ñaareelu xikma bi ñuy gis ci tabaski ixyaau sunnati imaami almuwahidin ibrahim alayhi salaam ca mooy dekkal la nga xam ne mooy sunna ki jiite ci ñépp ñu doon wéetal yàlla ca ñëw gannaawam ca mooy ibrahim alayhi salaam iz awha allahu ilayhi an yazbaha waladahu ismail ibrahima moomu kat la yàlla santoon na ko demal nga rendi sa doom ji nga xam ne nii moom mooy ismail summa fadaahu bi kabshin fa zabahahu badalan anhu gannaaw ba nag suñu borom yàlla daa di jote ismail ci benn gàtt boo xam ne nii moom la ibrahima war a rey ngir weccee ko ismaila moom waroon a rey qaala taala wa fadaynaahu bi zibhin azim nii lañ ko jote ci ab gàtt boo xam ne bu màgg la loolu muy wone képp kuy rendi xarum tabaskeem yaa ngi yéene sa xol ci nangul yàlla ci jébbalul yàlla comme na ko ibrahima ak ismaila jébbaluloon mi ngi noonu ca loolu itamit moo taxoon suñu borom yàlla yoonal la nga xam ne moom mooy tabaski lan mooy ñetteelu xikma ci tabaski mooy a tawsiatu ala al iyal yowma al ayd mooy suñu borom dafa tëral xeet bu ne mu wutal ko ay feet ñun yàlla ñaari feet lañu may boo xam ni amul bu ko ñetteel benn feet gi muy tëj korite muy tëj weeru koor muy korite beneen feet ba muy tëj aj makka te mooy tabaski di feet ba gën a màgg su booba dañuy gis ne war nañ kër gu nekk yëg ne dañuy feetu yëg ne dañuy feetu looloo tax ñu ne góor ku man na rendi am xar ndax kër gi jàpp naa ak lu ñu bari bari buñ fa rendoon benn xar sax keroog daan ca mën a toggub añ ngi noonu rawatina mbokk jamono ji ñuy dund yàlla yombal na aw ndawal waaye xawoon naa jëfe lool jamono yu jëkk ya na doon dëkk nit ñi ñun ñaag dëkk arab yi wallahi da ngay gis ñoo xam ne tabaski ba tabaski lañ daan lekk yàpp tabaski ba tabaski lañ daan lekk yàpp gis ngeen loole kon nekk mbir boo xam ne ni dañ ko def muy yaatal ñeel njaboot gi wa ishaatu rahmati bayna alfuqaraa wal masakin waaye it profitoo ci ñooñee nga xam ne ñooy faqiir yi ak miskin yi tamit ñu jox leen ca la nga xame ne nii mooy ndawal googe ba bisu it bi ñépp mën koo bokk gis ngeen loolu it ci xikma yi la bokk amma ñeenteelu xikma bi mooy shukrullah shukrullah taala ala ma saxara lana min bahimati lanaam mooy sant yàlla nag mi nga xam ne moo ñu tàggatal ñeel ñu la nga xam ne mooy jur gi ca mbokk julit loolu nga xam ne mooy alaam mooy giléem yi nag yi xar yi ak bëy yi ca tabaski ci loolu rek lay nekk tabaski kenn du tabaskee ginaar kenn du tabaskee ay njamala kenn du tabaskee leneen lu dul ñeenti yooyu muy bahimatul anaam suñu borom yàlla tàggat ko ñeel doomu aadama nga dem gis benn gone ak naar jiital téeméeri gileem yoo xam ne benn gileem rek bu dekk na woon téeméeri nit mënuñu ko téye gis benn gone ak pël mu jiital fanweeri yëkk ay xabban gis ngeen gis ngeen loolu gis ñi jiital bal da ngay gis jur googe da ngay xëy bàyyi leen ñu dem wëri lekk ba suur ngoon ñu dellu siwaat nga jàpp rat lu la neex heure bu la neexee jaay heure bu la neexee rent yàlla tàggat leen ñeel ñu moo tax borom bi subhanahu wa taala nag ne nañu am bis boo xam ne ni it dañ dañ cay jël di ci sant yàlla mu ne fakulu minha lekk leen ca wa atmiu alqaania walmu'tar lekk leen ca may ca képp koo xame ni nii dafa doon ko aajowoo ak képp koo xame ni nii dafay nekk ñëw di leen ñaan si mooy ña nga xam ne yaay jël joxe leen ak ña nga xam ne dañuy ñëw ñaan si la kazalika saxarnaha lakum laallakum tashkurun ñun dey ñoo leen tàggatal jur gi ñeel leen ngiree ngeen mën a sant yàlla ci loolu ba bu ngeen koy rendi du ngeen ko rendil keneen ku dul yàlla jalla waala borom bi nag ni lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha lii nga xam ne mooy yàpp yi lu mu bëri bëri yàlla soxlawu ko deret ji yàlla soxlawu ko walakin yanaaluhu taqwa minkum lay yegg ca yàlla mooy ragal yàlla gi nekk ci yéen looloo tax nit dina jënd xaru cinq cent mille kii jënd xaru cinquante mille suñu tabaski borom cinquante mille yi ëpp yool bu rëy ca yàlla lu tax ndax moom mooy la jëfam gën a sell moom la jëfam gën a sell moo def ngir yàlla tax amma kii def ngir puukare wu même bu doon trois millions la fere ca xarma it loolee suñu borom mu ne soxluwuma yàpp bi soxluwuma deret ji loolu kon mi ngi noonu allahuma bu sa kattan yaatoo it nga am xar mu mag def ko te yéene bi sell it loolee moom day nekk loo xam ne nii lu baax lay doon lan mooy attey tabaski ay ponk ya nga xam ni mooy aju ca xarma ngiree mu doon xar moo xam ne nii islam da koy nangu muy ahkaamuha la ca jiitu muy sinnuha waaw xar moom wala bëy wala nag ana ñaata lay dund ngiree ñu man koo jàpp ne kii gat mat na tabaski mu ne la yujzi'u fi l udhiyati min ad-da'ni aqallu min al-jaza mu ne du mat ci xar mu ñu rendi ca tabaski ca xar ya loo xam ne dafa gën a néew am kuy am kuy moomee nag wa huwa ma awfa sanatan aw qaarabaha mooy loo xam ne nii am na at wala mu jege at ndax boo demee ci giri arab yi ni ñuy déggee aljaza muy kuy dafa wuute ci ñoom am na ci ñoo xam ne dañ naan fokk mat at am ci ñoom ñu ne fokk mu am dix mois am ci ñoom ñu ne fokk mu am huit mois bokk na ci ñen néew ci ñoom sax ñu ne bu amee six mois dana baax waaye kon la gën mooy lu mu néew néew la ngay rendi na am at wala mu jege at mi ngi noonu loolu mooy ca xar ya wa fi gayri dani min almazi wal ibli wal baqar amma bu dee lu bokkul ak xar ca bëy ya giléem ya nag ya laa yujziu aqallu min sani min sani wa huwa fi lmaiz ma awfa sana wa daxala fi saniya mu ni bu dee lu dul xar moom fokk mu am lu romb at te bu dee ca bëy yaa mooy lan mooy koo xam ne atam moom mat na ba dugg ca ñaari lu at ba waaye bëy moom bu atum matul kenn du ko tabaski wa fi libli ma awfa arbaa sanawat wa daxala fi lxamisa bu dee gilee ma fokk ñeenti at ya mat sëkk ba mu dugg ca juróomeel ba wa fi lbaqari ma awfa sanatayni wa daxala fi salisa amma bu dee nag fokk mu am ñaari at yu mat sëkk ba dugg ca ñetteel ba li qawlihi alayhi salatu wassalaam laa tasbaxu illa musinna yenent bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax gàllawaay bu leen rend ci tabaski lu dul lu am at illa an yasira alaykum fa tasbaxu jazatan min addan xanaa mu dem ba mbir ma jafe ci yéen ah su boobaa ngeen rey aljaza mooy kuy boobu ma la waxoon sànq ak interprétation ya ca borom xam-xam yi wax ndax mooy bu am at wala bu jege at wal musinna min al an'am hiya saniya amal musinna mooy loo xam ne moom dund na at ba dugg ca beneen at ba mi ngi noonu kon ci gàttal mooy loolu doonte ne li gën a bari Sénégal mbokk xamuñu di tabaski la nga xamee ni nii moom mooy ay giléem ak i xar ak ak i nag donte ni lislaam maye na juróom ñaari boroom kër cotisé jënd benn nag bi su tabaski ñu rey ko ñu rendi ko ñoom ñëpp am nañu tabaski jënd benn giléem ñoom ñëpp am nañ tabaski donte ne loolu dee su ko nangu ci xar naka noonu it pour gone ak ndakaaru nañu xam ni tabaski bëy lu dagan la donte ne quartier yu bëri ci ndakaaru kenn ñemewu ko fa gars yi ngi nettali benn góor bu ko defoon ci ngor daa mujj tuxu ndax njaboot gi fu ñu génn rek ñu topp leen borom bëy borom bëy ila axiri te mooy gone ak ndakaaru xamul loolu waaye mbokk nañu xam ni léeg-léeg tabaski jot nga gis ñoo xam ne dañu wër xër ba sonn dem peese ji yàpp wala ñu jënd ay mbote yoo xam ne nii du dara la nga xam ne moo nekkoon sunna mooy suñu amee béy ñu rey béy na doon góor la wala jigéen la mi ngi noonu la nga xam ne mooy ñaareelu atte ci wàllu tabaski mooy salaamatuha ana ban mucc la war a mucc laa yujziu fi ludhiyati siwa salima min kulli naqsin fi xilqatiha du doy ci tabaski lu dul loo xam ne daa mucc ci bépp wàññeent ca na ko ca ca mbindam ga fala tujziu al awraau wala al arjaau wala al udaba wala al adbaau la nga xamee ne ni moom mooy xar moo xam ne dafa pat wala xar mu lafañ wala xar moo xam ni béjjén ya dañoo foq mi ngi noonu wala nopp ya dañoo dagg ay maksuratul qarni min asliha aw maqtuatul uzni min asliha loo xam ne béjjén ya dañoo da damm ca fam saxe ca bopp ba wala nopp ya dagg fañ saxe ca bopp ba loolee dañuy gis ni doo doy ci tabaski allahuma lu dul lenn ci maliki yi ñoom nee nañ su dee wér na dagg da mooy béjjën ya wér na da du tee ñu mën ko tabaski te bu dee ne ca ba muy doog a damm ak deret jaag yooyu loolu du mat tabaski mi ngi noonu mu ne walal marida walal ajfaau xar mu feebar kenn du ko tabaski al ajfaau wa hiya al xaasilu allati la muxa fiha xar moo xam ne dafa loof loof ba nekk deru kese it nga xam ne yax ya amatul lenn loo xam ne nii ay yokk yu ca nekk kooku kenn du ko tabaski wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arbaun la tajuz fi l adaahi yeneen ci bi ne ne ñeent yi day du dagan ñu koy tabaski al awraau bayinun awruha lii nga xam ne mooy pat bu wóor ne daa pat kon gumba moom taxul ñuy wax wal maridu bayinul maraduha bu feebar ba mu leer feebaram ba wal arjaul bayinu dalauha ak bu lafañ bu leer lafañam nga wal kasiratu lati la tunqi ak ba nga xam ne dafa loof ba amul lenn ci graisse mi ngi noonu yaani la naqiya fiha ay la muxa fi izamiha mooy amul benn yuq boo xam ne dafay nekk ca yaxam ya ngiree loof gu mu loof wa hiya alhaazilul ajfa ca mooy mi ngi noonu rek bu loof ba mi ngi noonu ñetteel bi mooy afdaluha ana ban tabaski ban xar moo gën afdalul udhiya ma kaanat kabshan aqran fahlan la gën ci tabaski mooy loo xam ne dafa nekk xar moo xam ne xar mu góor la bu am ay béjjën fahlan mooy mu ngi noonu góor ab yat mooy doon bu weex yuxaalituhu sawaad xawla aynayhi mi ngi noonu mooy koo xam ne nii mooy xar moo xam ne dafa weex waaye mu jaxasoo couleur bu ñuul ca bëtam ya wa fi qawaa'imihi ak ca tànkam ya iz haadha huwa alwasf alladi istahabbahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa daha bihi boobu mooy melokaan bi yonent bi tànn moon ca it xar mu mel noonu la tabaskee woon qaalat Aïcha radiyallahu anha inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daha bi kabshin aqran yonent bi day ma nga tabaskee woon gàtt boo xam ne nii daa weex mi ngi noonu gàtt boo xam ne daa am ay béjjën yata aw fi sawaat ma nga doon doxe ci lu ñuul ay tànk ya te tànk ya dañoo ñuul mi ngi noonu wa yamshi fi sawaat ma nga doon dox ci lu ñuul doonte ne ni la gën a sur ci yeneen xadis yi mooy wa yabruku mooy day bóofe te mooy biir ba moo ñuuloon ndax yata u bi ak yamshi benn la wa yanzuru fi sawaat te daan xool ci lu ñuul te mooy kon xar mi gën ci xar yi mooy xar boo xam ne ca ci tànk yi dañoo ñuul la wër bët ya ñuul suufu biir ba ñuul loolu mooy melokaan bi gën ci xaru tabaski la nga xamee ni nii mooy waxtu wañ ko war a rendee waxtu zabihiha waqtu zabihi al udhiya sabaahu yawmi al iid baada salaa mooy la nga xam ne mooy subag bi su tabaski ni ngi noonu gannaaw ba nga xamee ne nii dañoo julli ba pare ay salaatul iid fala tujzi'u qablahu abadan ca mooy fokk ñu rey ko gannaaw jullig iid amma lu jiitu loolu du dagan ñuy rey xar mukk li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man zabaha qabla as-salaa fa innama yazbahu li nafsi wa man zabaha ba'da as-salaa faqad tamma nusukuhu wa asaaba sunnata al-muslimin daana wax ne ki rendi am xar day avant muy julli ji kooku boppam la ko rendil amma ci ren bi gannaaw bu mu jullee ba pare ku mel noonu day lii di tabaski mat na te it dab na la nga xam ne moom mooy sunna jullit ñi ngi noonu dëppoo naag sunna jullit ñi amma baada yowmi al iid fa innahu yajuuzu taxiruha li yowmi saani bu dee ni gannaaw bisu it it dagan na ñu yéexe bañ a rendi xarma ba bisu ñaareel ba wa saalisi baada al iid ba bisu ñetteel ba sax gannaaw iid lamma ruwiya kullu ayaami tashriq zabhun ndax xadis boobee di wax naan lii nga xam ne mooy bisu tashriq ayamu tashriq te mooy ñetti fan yu topp ci tabaski yépp yooyu yépp bisu rendi la allahuma lu dul lu mel ne mazhab malik ak borom xam-xam yi gisee gisinam ñoom ñi ngi ko yemele ci ñaari fan yu topp ci tabaski ak bisu tabaski bi muy ñetti fan amma ñi sukkandiku ci hadis boobu ñoom dañ naan ñeenti fan yëpp mënees na caa rendi te mooy bisu tabaski bi ak ñett yi ca topp ñu noonu juróomeel bi ma yustahabu inda zabhiha ana lan lañu sopp ci rendi xaram tabaskeem taxewa ko yustahabu inda zabhiha an yuwajjihaha ila alqibla sopp nañu kii rendi am xaram mu jubale ko qibla te muy wone ni su dee ni jubluwul qibla it teewul rendi ga baax na wa yaqulu inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara alsamawati wal ard xanifa wa ma ana min almushrikin mu teg ca wax joojee suñu borom wax te baay ibrahima waxoon ko maa ngi jubal sama kanam ñeel ki bind asamaan yi ak suuf di jeng bépp shirk wa ma ana min almushrikin te man day bokk ma ci ñuy bokkaale inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin sama julli samay rendi sama dund sama dee yépp ñeel na yàlla borom mbindaa fan yi laa sharika la amul kenn ku ma koy bokkaaleel wala boog amul kenn ko bokkaaleeg moom dara wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin loolee day lañ ma digal bokk naa ci ñi jëkk a jébbalul yàlla wa ida bashara zabha wa ida bashara zibha an yaqul bismillah wallahu akbar allahumma hadha minka wa lak mu ne bu demee ba jëm ca la nga xam ne mooy rendi ga nag mu ne bismillah wallahu akbar allahuma hadha minka wa lak yàlla day lii maa ngi koy rendi ci saw tur gannaaw ba di la màggal lii ci yow la jóge woon waaye yiwit lañ ko jagleel loolu mbokk mooy lu ñu ca sopp doonte ne la cay farata moom mooy bismillah ba ren di moom nga wax bismillah bokk na sunna bu ca dëgërit nga wax wallahu akbar ngir suñu borom mu ne li tukabbirullaha ala ma hadakum mi ngi noonu bismillah wallahu akbar ci bisu tabaski ba mi ngi noonu mu ne li nga xam ne mooy sixatul wakalati fiha dana wér ci tabaski googee nga jox ko keneen mu rendil la ko yustahabu an yubashira almuslim udhiyatahu bi nafs sopp nañ julit rendi ab gàttam ci ci boppam mu rendil ko boppam wa in anaaba gayruhu fi zabhiha jaaza zalika bila xaraj su dee ne dafa uutal keneen ci mu rendil ko ko it loolu dana dagan ci lu ànd àndul ak benn xat-xat wala xilaafa bayna ahli ilmi fi haza borom xam-xam yi kenn amul ci ñoom jooyoo ci ne nit ki bu santee keneen rendil ko loole dana baax loolu tax nit ki mën naa nekk Amérique sax sant ko ko rendil xaram tabaski fii ci teewul tuyaaba ja da koy ñeel juróom ñaareel ba mooy xismatuha al mustahabba naka lañu soppe ñu def ko ndawal googe yustahabbu an tuqsama an tuqassama al udhiya salaasan tabaski daal soppoon nañ ñu def ko ñetti cër yaakulu ahlul bayti sulusan waa kër ga lekk ceer ba wa yatasaddaquuna bi sulus ñu daal di sarxe ceer ba wa yahduuna li asdiqaa'ihim sulus al axar ñoom maye seeni jegañaale la nga xam ne mooy ceer beñen ba li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam kulu waddaxiru wa tasaddaqu yonent bi dana wax lekk leen denc leen sarxe leen mi ngi noonu wa yajuuzu an yatasaddaqu biha kullaha dana dagan nga rendi sa xarum tabaski sarxe lépp kama yajuuzu an la yahdu minha shay'a comme ni muy dagan it bu dee waa kër caam ñu bañ caa sarax kenn teewul it bu ñu ko lekkee am na tabaski loolu mbokk ci ngëneelu yàlla yi ca la bokk juróom-ñetteel ba mooy ujratu jaziruha min ghayriha na nga xam ne kenn du ren ren di tabaski ut ku la koy feesloo nga digganteeg moom naan ko dama lay fay ci der bi wala yàpp yi wala nangam déedéet laa yu'tal jaziru ujrata amalihi min al udhiya aji fees je kenn du ko fayee ca ah la nga xam ne mooy xarma li qawli ali radiyallahu anhu amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an aquma ala badana yonent bi day nee woon na ma taxawal gileem yam doon recc mag wa an atasaddaqa bi luhumiha wa juludiha wa jilaliha mu ne naa sarxe lépp loo xamee ne nii nekk na ca moom ca der yaag mbaq yaag yàpp waag lépp naa ko sarxe wa an laa utiya aljazara minha shay'a aljazira minha shay'a ka nga xam ne mooy sàmm mu ne bu ma ko jox ci yàpp wi dara wa qaala nahnu nutihi min indina na ñëw ñun ñoo koy fay ci suñu xaalisu bopp mi ngi noonu juróom-ñeenteel ba hal tujzi'u shaatun an ahli baytin ndax benn kër mën nañoo am benn xar dong mu doy waa kër ga tujzi'u shaatu alwaahida an ahli albayti kaafatan benn gàtt kese dana doy benn waa kër mboole seen wa in kaanu anfaaran ajidiin doonte ne dañoo nekkoon mbooloo mu limu bu takku li qawlihi li qawli abi ayub al ansaari radiyallahu anhu kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaana rajulu fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yudaxi bi shaatin anhu wan ahli bayti yonent bi day ba muy dund góor gu nekk da daan reyal boppam boole ca njabootam yépp bokk na maa yatajannabuhu man azama man azima ala al udhiya koo xam ne nii daa dogu ci ne dama nar a rendi tabaski yukrahu karahatan shadidatan liman arada an yudaxiya an yaxuda min sha'rihi aw asfaarihi shay'a mu ni sib nañu sibin bu tar ki nga xam ne daa fas yéene rendi xar muy laalati karawam wala di laalati ay weyam di ko wàññi wala di watu wa zalika ida uxilla xilaalu chahri zilxijja te loolu mooy bis bu feeñee weeru tabaski wa xatta yudaxi ba baa muy rendi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ida raaytum xilaala zilxijja ay waay bu ngeen gisee weeru tabaski teru wa araada ahadukum an yudaxiya kenn ci yéen bëggoon rendi fal yumsik an shaarihi wa asfaarihi xatta yudaxiya ay waay na téye bu mu watooti bu mu dagati ay weyam baba muy rendi xaram li ci mujjoon mooy tadxiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam an jamii al umma nañu xam ne yonente bi alayhi salaam rendi waaleel na xeet bi yépp man ajiza an il udhiya min al muslimin koo xam ne lott na ci amul lu mu rendi ci jullit ñi naalahu ajrul mudaxiin teewul dana am yoolu ba ña rendi tabaski am wa zalika li anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi kat inda zabhihi li ahadi kabishayni qaal keroog ba muy rendi benn ca ñaari gàttam yum doon tabaski dafa wax ca benn ba allahuma haza anni wa amman lam yadaxi min ummati eway yàlla lii day dana ma ñeel ak képp koo xam ne ni rayul ci sama xeet ba ko kon mi ngi noonu incha allah ñu bàyyi ba bilal noddal ñu yal na yàlla wërsëgal ñu yéegi ci tabaski ga ca jàmm yàlla yombalal ñu ko ca barkeelal ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain da nga jëkk a wax ne ñii at ci seen seen tabaski ni muy demee hadiyu bi am wala ku di xaal ki nga xam ne dafa nekk ci aj makka ku mel noonu bu dee ne aj ga dafa laaj mu rey dafay war a rey su dee dafay def la nga xamee ne nii moom mooy tamattu su boobaa da ngay gis ne dafay rey su dee dafay def la nga xam ne nii mooy alqiraan boobu dafay rey la nga xam ne du rey mooy buy def ifraar su dee ne dafa rey ab gàtt ca màkk moom loolu moom fokk mu rey gàtt ca màkk loolu nag dàqantewul ak waa këram gam bàyyi mu bàyyee leen xarum tabaski moo xam ne waa kër ga buñ ko reyee loole même moom bu nekkee màkk ca amul ca aj aj màkk aj màkk ga muy aj rendi nekku ca waa këram gam bàyyee xar ma ñu rendi ko ci turam da koy yóbbaale yóbbaale waa kër gi yëpp amma bu dee ki nga xam ne dafa aj makka borom xam-xam yi gis nañu ne terewuñ ko ci lu muy takk li ñu ko tere mooy lu muy ñaw looloo tax ba dara nekkul ci nga takk jaaro wala nga takk montre wala nga takk kamara amma loo xam ne dañ koy ñëw nga di ko sol loolu lañ ko tere wallahu subhanahu wa taala aalam naam ah wala ko bismillah naam koo xam ne tabaski ak xar dañoo bokk ci benn weer ndax loole mën na koo boole ci benn bis wala wala déet ala kulli xaal ki nga xam ne nii dafa am doom moom dañu xam ni bokk na la gën a feddaliku mooy doom boobee dañ ko war reel ab gàtt soo amee ab gàtt nga am doom waroo naan dangay xaar ba tabaski ga loolu da nga ko ko war a reyal fi borom xam-xam yi am tuuti ixtilaaf koy mooy ki nga xam ne bisu tabaski dafa tombeek mu war a rendil doomam ndax mën na yéene rendi ñeel doomam xar mi ci bisu tabaski bi mu amaale ci tabaski am na ci ñenn ñoo xam ne dañu ne loolu mën naa nekk ngir jaamu yàlla la yu duggante ngi mel ne rek tey jii ki nga xam ne dafa ñëwoon fajar dugg ci jàkk ji war a def tahiyatul masjid fekk jullegul ñaar rakkay fajar ñaar rakkay fajar yooyu du yóbbaale tahiyatul masjid allahuma lu dul ni bokk na ci li borom xam-xam yi yeneen yi di wax mooy ñaari jaamu yàlla yoo xam ne bokkul su ko defee dañ naan la bu doon yow amoo lu dul benn xar ci kër gi ca tabaski bi mi ngi nii moom da ngay rey xar mi ngir tabaski waa kër gi xale bi moom heure boo jàppanee nga rendil ko xaram su dee ne nag kër gi am na kenn koo xam ne dafa rey xar kër gi rendi nañ fi xar su boobaa xar moomu ñu rendi dafa yóbbaale waa kër gi kon yow beneen xar bi mën nga koo rendil la nga xam ne moom mooy sa doom boobee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam